asalaamaaleykum eh, patriotes du monde ah, man maa dikkaat na parce que gis nga ci jamonoy wax lañ toll jamonoy wax nag ku noppi yaa tooñ sa bopp man li ma mënul comprendre mooy gannaaw bi ma leen nuyoo yéen ñëpp les patriotes du Sénégal partout dans le monde mais yow nan ngay mënee nit tudd la au lieu que nga interpellé ko wala nga porté ko plainte wala nga jox ko citation directe wala nga wax ak moom ngay wiiri di attaqué koo xam ne yoonam nekku ci mais ñi nga xam ne Adji Sarr daf leen a tudd ci groupe de 16 bi lan moo tax nangu ñoo attaqué Adji Sarr wala ñu porté ko plainte man affaire question boobu rek laay laaj sénégalais ñi nga xam ne ñoom la Adji ci listam lan mo tax au lieu d'attaquer Adji en justice ou bien de l'attaquer par presse interposée ou d'autres formes nous dañuy dem di attaquer qui qui xamné ne yoonam nekk ci mais Baye MC bi vous yi amé mo am accès à Adji dafa chercher à comprendre s'il y a vérité ou pas parce que mom tamit kilifa la ta engagé wu ci loo xam ne nii amu ci ay cëslaay amu ci lu leer mais bi ci engagé woo ah dem ba ci biir mu enquête fexe ba xam ne Adji Sarr mii li muy wax du dëgg mu dugg ak moom ci système bi ñuy wax mooy onze ko comme ni ñuy def <laughs> Baye Mbaye da koo këppatal li ñuy def picc ñi ñi ñi nekk ci àll bi xam nañ lan mooy këppatal bi mu këppatalee Adji ba Adji Sarr dugg ci biir mbaal gi Adji Sarr dafa commencé di yebbeeku nag Adji Sarr dafa commencé di ko wax àddunaam ak àllaaxiraam képp ku ko mës nuyu na ko aji noo def mu ne la maa ngi fi bàyyi mbay xam na ko xam na turam xam na la ngeen séq mais loolu bu amee mu dem ba Adji Sarr moom ci boppam mu def audio wax moom tudd ay tur ni ñii ay doomeraam lañ ngeen baal ma ci kàddu yi nangam ak nanga ak nangam ak nangam am yu wax ci ñoom mais ñoom la ñu waroon a def mooy ba ñu xëyee ñu woo seen avocat def seen citation directe wala ñu porter plainte wala ñu dem ci procureur wala ñoo xam whatever lu ñu bëgg a def mais au lieu de s'attaquer directement à ñoom dañuy dem wiiri di wax yeneen i wax franchement parler man j'arrive pas à <laughs> comprendre Sénégal Sénégal dafa jaasoo complètement

bu fekkee original la nga xam ne moom moo la sosal nga yóbbu ko ci yoon yoon àtte leen mais au lieu d'aller s'attaquer à Adji Sarr ñoom dañuy wër keneen ku ñuy attaqué man daal j'arrive pas à comprendre quoi man daal man mënuma comprendre quoi man bu ma Adji Sarr tuddoon ci liste ba man Adji Sarr ci boppam moom laay attaqué en justice du fi nekk di wut keneen ku ma koy ji Adji Sarr di magum jëmm sëy suba teel bëccëgu ndara kàmm jiiñ Ousmane Sonko viol ñu bari ne Adji Sarr li mu wax dëgg la Ousmane sonk dañ ko war a yóbbu ci yoon ñu yóbbu yëf yi ci yoon di ko traité en justice jeexagul malgré sénégalais yëpp xam nañ ni Adji Sarr duulkat bu mag la wut kotu xaalis la xamul fu muy taxaw terewul justice mi ngi def liggéeyam mais yow mi nga xam ne dañ la cité ci yow leer leer na la yow lii yow sa yoon nekku ci mais lu la tere dem porte plainte lu la tere porte plainte cybercriminalité ñu def seen i enquête xam ba xam audio yi c'est authentique est-ce moo ko wax wala waxu ko bu fekkee ne authentique na nga porter lent en fonction de cela ñu yóbbu leen ci justice wala nga def Adji Sarr citation directe wala nga dem yóbbu si ñu xoo ojo yi xool ba xam baax na wala baaxul yooyu yëpp c'est des des actes à poser mais au lieu de faire cela ñoom dañuy wiiri dem di attaquer keneen koo xam ne yoonam nekkul Baye MC limu def dafa doon enquête comme un policier comme Adji Sarr taalibeem la mu bëgg xam li ñuy jiiñ Ousmane Sonko ndax deug la wala du deug def na ay façon ndax Baye MC du sëriñu léegi yi nga xam ni nii mënaluñu seen bopp dara mom sëriñu sëriñu MC la dafa yàgg dox xam aduna di liggéey comme doomu adama yëpp xam comment la àdduna ni muy doxé voyage

daal di koy jox Adji ne ko léegi bu ma la ko joxee après da koy lire ma enregistré la non y a des y a yoo xam ne c'est insensé amul sens gis nga Sénégal nañ bàyyi tàppale gi ñu nekk ak trian geek jaay neexum xel gi fii ñëpp a yeewu ña doon nelaw sax li daa mbooj di wax naan ña doon jayeexu ñoo daanu ci kaw ñeneen ñi ñëpp yeewoondoo loolu moo am gis nga kilifa da nekk kilifa bàyyi fen fen la yàlla gën a sib ci àdduna kilifa du fen bépp jullit du fen rawatina nag kilifa fen baaxul nit ki da nga war a honnête sincère ci say démarche ak say relation position yi ngay jël nga di ko assumer su fekkee Adji Sarr daf la tudd ci lis da ngay porter plainte da ngay dem cybercriminalité xaw ma fooy dem yaa xam noo koy lijjantee fexe xam ba xam audio yii ñu la tudd audio yu authentique la waaw wala déet boo ca noppee na nga def sa plainte bu rafet jébbal ko procureur wa nga dem tribunal yàlla yaa xam foo ko yóbbu mais doo nekk fii ñu tudd la ci mbir au lieu que nga porter plainte ngay wiiri di attaques yi ci Baye Mbaye MC Baye Mbaye MC lu ci yoonam patriotes yi les patriotes yi les les les militants d'Ousmane Sonko lan moo ci seen yoon ci affaire boobu yow dañ la tudd dañ laa tudd doo porter plainte non mais Sénégal mais Sénégal yàqu na léegi complètement ay magum jëmm ngay gis ñu taxaw di fen fen yoo xam ne nii da nga naan lii c'est pas possible mel na ñoo xam ne ba jógeewuñ génnewuñ ci kër bàyyiwuñu kër njaboot ci kër te yàlla li mu gën a sib li mu gën a bañ mooy fen ay fen mën ngaa njaaloo mën ngaa def lu ne yàlla jégalu ko mais ay fen day yëngal aras maanaam séesu yàlla bu fa mu toog boo fenee sées baa yëngatu nga xam lu la yow ñu ci ay conneries en tant que Ousmane Sonko que ko waxee koy wax ba bu procès bi man damay porter plainte te commencé na di porter plainte parce que xam dañ dañ a der ni son image donc il est obligé moom mu porter plainte ñi def Ousmane Sonko dafa porter plainte porter plainte contre X léegi yow mi nga xam ne yaa doon wax naan waaw na justice dem liggéeyam yëf yaa ngi ci yoon dañ ko war a leeral yow ñu tudd la ci yëf yi au lieu nga dem jël sa avocat porter plainte teg ko teg yëf yi ci justice ngay nekk naa noo diw yow yaa def yaa wax lii yaa def laa koo xam ne yoonam nekku ci Baye Mbaye MC yoonam nekku ci problème bii xew problème bi dafa am ab doomu taalibeem Adji Sarr parce que bu ñu nee taali Adji Sarr taalibe Baye Mbaye euh, MC la sa parce que Adji Sarr Baye Niass la yaakaar te Baye Mbaye MC mooy Baye Niass donc loolu soxlawul nga naan ay du taalibeem direct ak ay ci kee la jëbbal ak képp kële la jëbb képp koo xam ne ci faydu bi nga bokk taalibe euh, MC Niass képp koo xam ne ci faydu bi nga bokk taalibe MC Niass la ak foo mën a nekk ci àdduna ak foo mën a jokk directement comme indirectement Baye Niass a tax ñu naan faydu te Baye Niass mooy doo mooy MC Niass donc képp ko xamné ci faydu nga bok Baye mbay MC sa serigne la moo xam nga jébbalu ci mom directement wala indirectement donc pas besoin d'aller nous divertir parce que yenn amna yo xamné ni c'est créer des diversions pour noyer le poisson il faut qu'on arrête dans ce pays vraiment Sénégal man mom vraiment xamatuma lan la wara a quoi vraiment sama xam-xam jeex sama xam-xam jeex na ci réewum Sénégal jeex na tàkk tàkk tàkk amatuma ci beneen pexe amatuma xalaat ci Sénégal parce que ay magum jëmm ñooy caaxaane seen bopp di foyee Sénégalais bu leen weesoo Ismaïla Madior Fall tt non Macky Sall nag benn côté ci benn côté war nañ koo remercier énormément parce que ñëpp ñiñ daan yëkkati di leen aj ajal teg leen ca kaw di leen euh, vénérer Macky Sall fexe na ba ñu xam ne ñooñu ndekete duñ tous cent franc duñ ko nit da ngay am dignité am personnalité gëm sa bopp booy dee sax nga dee ci ñàkk waaye nga ànd ak sa dignité Ismaïla Madior Fall li nga fi wax moo fi des boo wëlbatikoo ñëwaat ñu nommé le ministre de la justice tax nga bëgg a changé waat sa discours vraiment dama naan yow génnewoo ci kër maanaam yow seen yow moom bàyyi woo yow xëy na ca àll ba nga génnee ñëw mais ne amoo bàyyi woo jabar bàyyi doom bàyyi xarit bàyyi mbokk bàyyi am di jàmm bàyyi yaay bàyyi papa déedéet loolu moom mënuma ko gëm parce que yow magum jëmm mënoo wax li nga fi wax ba sénégalais yëpp enregistré ko teg nga wëlbatiwaat ñëwaat di wax leneen en tant que professeur en tant que koo xam ne nii dañ koo reconnaître ay nit mu jàngal ay nit koo xam ne yow da am ay élèves jàngal leen ba ñu génn di di exercer seen métier nga wëlbatiku bëgg a jàppee sénégalais yi ay ay ay ay xar ay xale yu ndaw di leen fooyee ba nga gannaaw ba nga fooyee sa xel mi ba pare nga yaakaar ni mën nga fooyee suñu xel ah man de wax dëgg yàlla bu ngeen jaaxlewut man jaaxle naa man moom Sénégal moom vraiment jaaxle naa quoi parce que xamatoo kan nga war a yaakaar quoi ak kan nga war a topp ak kan nga war a wóolu fi mu toll nii on sait plus à quel saint se fier xamatuñ ko parce que bu fekkee ñi ñu war a ñi ñu war a yëkkati teg leen ca kaw ñi di ñu won yoon wi ñoo ñu ñoo nangoo wàcc dans les caniveaux jàppee seen bopp ay raa man xamatuma ci dara